no Bokk candidat premier ministre en campagne déguisé nee man membre Pastef les patriotes là. photo bii la ni ma taxaw fii ci Ousmane Sonko donc loolu doy na pour ñu man Pastef la bok. Mbok yi photo baa ngi preuve am man Pastef la bok, parce que dafa génnee photo jox ko conseil constitutionnel ne leen photo ou ak Ousmane Sonko photo bi nak dafa am histoire am lan la 2019 élection présidentielle ñun wa avenir Sénégal bi ñu bëgg ñun ñoo tok ni dañu campagne électorale pour am dinañ ci candidat 2019 nous avons waxtaan ci suñu biir ñu ni est-ce que dañu wut candidat pour 2019 ci la ni dina xat pour ñu am candidat en 2019 dañu danañu seet ku mën a ànd ak ñun ñu yóbbu la nekk jàppale la nga nekk suñu candidat en 2019 ci lañu ñu seet candidat yi fi nekkoon yépp ñu bari ñëw suñu siège wax ak ñun ñaan ñu pour ñu jàppale leen am na fi ay ay leader de haut yu réew mépp xam ñu ñëwoon seet si suñu siège kenn ci ñoom nee na ma bi mu ñëwee xam naa ni yoruloo parti politique xam naa ni lii ngeen yor mouvement la xam naa ni bu dee mbooloo ay milliers yooyu du moom laa seet si ci yéen waaye dafa am crédibilité boo xam ne bëgg naa ko te yéen am ngeen ko dafa am constance ak ay valeurs yoo xam ne bëgg naa ñu nekk sama wet te yéen am ngeen ko dama bëgg ngeen jàppale ma lii lañu ñu boobu leader wax ñu ne ko dégg nañ la bi mu demee ñu waxtaane ko ñu ne ay valeurs yi mu gëm ci politique bokkul ak ñun valeurs yi ñu gën ci politique ci jamono jooju laa waxtaan ak Ousmane Sonko parce que xamanté nous nañu déjà bu yagg ndax biñuy sos avenir Sénégal biñu bëgg en 2015 Ousmane Sonko dañ ko invité mu ñëw à salle ba bokk fa fekké si 2015 biñuy sos avenir Sénégal biñu bëgg c'était en mars 2015 hôtel terre bi pour wan ni avenir Sénégal biñu bëgg lu am la photo que ngeen di gis moy bis biñuy lancé lancé avenir Sénégal en 2015 Ousmane Sonko nous a fait l'amitié et l'honneur d'être venu dans la salle Fekeko. ko ndax bi ñu doon xam xalaat ni ñuy bindee suñu ay document de vision ak yooyu daf ci doon sax ñëw di ànd ak ñun xanaa kon kay bu ñuy wax dañu naan moom mo bok ci avenir Sénégal bi ñu bëgg parce que buma ma génne suñu document de vision ngeen gis ci ay mbindam parce que conseil yu mu ñu jox la pour won len ni ñi génnee ni dañu bok jàppale Ousmane Sonko parce que ñun biñu ñu xayit saytoo dañu ni Pastef lañu bokal gis-gis Pastef lañu ñu bokkal ay valeur Ousmane Sonko lañu ñu bokkal yoon comme jekku na pare na te ñun avenir suñu candidat parewul moom la ñuy jàppale ndax ñun amuñu obsession du pouvoir nous ne sommes pas des pouvoiristes ñëwuñu ci lii pour fëgg suñu dënn ni ñun rek ñoo mën a jiite réew mi ku ñu gis nga mën koo jiite ñu xam ne jekku nga ci avancé lépp lu ñu mën ak lu ñu xam danañ la ko jox nga avancé pour l'intérêt du Sénégal ñu jàppale Ousmane Sonko en 2019 moo indi photo bii ma leen won mu ni ma da ngay nekk sama porte parole campagne danga may jàppale ci bind samay discours ñoom day Fatou Diop Blondin ak lépp lu ñu amoon ci expert ñoom Julien ngi nii ñoom euh, Maron ñu boole leen ci kuréelu Pastef fi ñu ànd en tant que allié ni ma nekkee woon allié en 2019 noonu la président Boubacar Camara nekkee woon allié noonu la Atepa bi nekkee allié noonu la yeneen fukk fukk fukki parti nekkee woon ay allié ba tax sax ñooñu après ñu def coalition jot na ànd nekk alliance politique waaye Amadou Ba preuve bii mu génnee pour wane ni dama ànd ak Macky Sall wala euh, kii dama dama nekk ak Ousmane Sonko parce que def naa ak moom photo donc Pastef la waa léegi moom xanaa kon moom ak kii ñoo bokk parti politique bu fekkee ko àndal photo wu rek ci politique yéen a bokk parti politique Macky Sall mi ak Moustapha Niass yëkkati seen ay loxo ñoom ñaar di tàccu xanaa ñoom ñoo bokk parti politique bu APR xewlee woo AFP da ciy ñëw bu wooyee PS da ciy ñëw bu wooyee ay alliés politique am bennoo dañu ciy ñëw waa ñun bu ñu demee ci activité Pastef loolu lan ban problème la ak ban ban preuve la mën a constituer que ñii dañu bokk ci parti bi dafa am yoo xam ne dafa yenewul maana le bon sens sax da koo dàq. daf ci yokk leneen pour prouver ni dama bokk ci Pastef nee na temps yi ci ginnaaw dama demoon Bordeaux benn section Pastef bu Nouvelle-Aquitaine moo ma invité ma dem ci seen mitin mégamitin meeting nee na bi ma demee ci méga meeting bi dama ci jël parole bi ma jëlee parole dem na sax ba ni ci vingt deuxième minute bi bi may wax xam naa ni calculer na ma de waa ji topp na ma torop sax vraiment topp na ma nee na 22 deuxième minute bi ci laa wax ni ci tubaab Pastef et avenir Sénégal bi sont indissociables dégg ngeen français bi de Pastef et avenir sont indissociables nee na nag bu ñu nee rek ñaar ñi sont indissociables mooy man nangu naa ni kon Pastef laa bokk lii de la wax ci raccourci waa sëñ bi ku minimum de français ma defal ko cours gratuit leçon de français quand deux entités, quand deux entités sont dites indissociables, cela suppose que elles existent d'abord singulièrement, individuellement et chacune de son côté. Mon waxam dafa tontu bopam, li ma accusé moo ko tontu boo accusé. diou, ak diw ils sont indissociables dans nga cas ni diou ak existent deux entités sont indissociables lorsqu'elles existent d'abord, singulièrement, elles ont leur existence propre. Ensuite, elles se sont rapprochées et elles se sont associées à un point tel qu'elles en deviennent indissociables D'autres on parce que ont des idées ces deux amis là sont inséparables ça veut pas dire que ben nyari la ñaari Les la yu daje bis ils sont inséparables ça ne veut pas dire que Pastef et Avenir sont indissociables Dans nous sommes les deux faces d'une même pièce mais dafa pile face et la pièce est le projet politique que nous portons on a le même projet et la même ambition pour ce pays chacun a nga donne li Pastef est un parti politique légalement constitué Avenir Sénégal est un mouvement citoyen indépendant C'est la différence un premier ministre du Sénégal bu xamul différence Bobo, différence... ça veut dire problème de niveau il y a un problème de niveau amna... faut ça devient dangereux quand le premier ministre du Sénégal le président de la République le distinguer loolu ça veut dire que problème de niveau amna... Benen bi nga xamni def c'est muy grave encore une fois que souligner pour jéem ñoo takal nous dañu dem ci biir ministère de l'intérieur ak ñi ñu xaw ma ku leen ko seetal ñu génnee benn parti bu tudd avenir Sénégal dinaa leen jox récépissé am ñu génnee benn parti bu tudd avenir Sénégal bu numéro de récépissé 17 603 slash MINTSP slash DAGAT slash DRP bu tudd avenir Sénégal Nous avons loolu document du conseil constitutionnel Le conseil constitutionnel gis chef Cheikh parti avenir vous avenir Sénégal la. suis passé pour parti. waaw gis nga ko ñu joxe sax premier ministre du Sénégal bi président bu ki nga ministre de l'intérieur que parti politique du Sénégal Yann xamul parti politique yi ci Sénégal ku leen jité bu féké ñun mëna ñu am courriel bo xamné amul récépissé ñun wutuñu ko né fi ci réew mi bis bu né ñu ngi gis ci média yi ñuy wax bis bu né ñu ngi ci télé yi ñu am projet politique di porter koko xamul luñu doon mais koko bu né dina sam sen karangé sax war nañ ko sét parce que un état c'est du sérieux un état c'est de la crédibilité c'est un minimum d'information yo xamné mëno ko ñak man buma doon borom parti politique bi dama leen di porter plainte parce que bi du suñu parti dañu amuñu parti Qui kenen la xamuñu sax kan la lolu ñom jox nañ ko conseil constitutionnel parce que nous nañu rek avenir Sénégal mais ñun tudduñu avenir Sénégal suñu plateforme politique mu ngi une plateforme politique avenir point ci suuf ñu am slogan bu Sénégal bi plateforme politique avenir et avenir suñu boss dafa am lu muy alliance A V pour les valeurs E pour l'éthique N pour la nation I pour l'indépendance et R pour la république C'est mon avenir ma defal un cours gratuit suñu avenir une alliance pour les valeurs pour l'éthique pour la nation pour l'indépendance et pour la république C'est mon avenir ñun suñu suñu slogan suñu dàkkental ci wolof Moi, Sénégal bi Wa bëgg waaw moom daf ba jël numéro jambour yobou ko conseil constitutionnel ni loolu yëpp pour takal ñu waaye suñ bi ku mu jombalul dara dotu la jommal ci premier ministre u réew bu nek candidat di damay dem présidentiel ragal ragal ragal nit ba diko ko sosal loolu ba yobou ko jox ko lu mu jox lu mu momul suñ bi li luñ jar set la li ma leen di wax rek niveau niveau bi war nañ ko set lolou pour pour la sécurité de ce pays il faut le voir suñu existence li koy encore une fois et une différence tout en étant alliés avec PASTEF une alliance avec PASTEF nous le revendiquons nous le revendiquons nous le voulons Sous ma avec avec Ousmane Sonko ande socialement personnellement humainement amicalement et fraternellement a bu politique tax loolu parce que jaraluñu c'est très fort mais beaucoup parti dafa am limu am ma après les élections de 2019 est-ce que nous fusionnons fusionner ñu parce que Pastif, na sax ñu dem fusionner bokk avenir bi ñu nous ñu nous ñun nous suñu allié la parti bu la ko pour mu fort continuer yoram. nous ñun dañuy doon parce que différence et diversité moy charme démocratie la dañu bëgg ay indépendant am allier boo xam ni parti politique la waaw kay loolu war na mën a am dem ànd ñu ànd liggéey dañu am suñu logo wax na itam ni suñu couleur yi sax dafa niroo couleuru Pastef toujours rek pour tuumaal mu ne suñuy couleur dafa niroo couleuru Pastef waa mbokk yi bu ngeen xoolee fii 2024 bi rond boobu gisu leen fa rouge rond bi gisu leen ci vert gisu leen ci blanc yalla dafa def loolu tamit moy couleuru Pastef waye ñun li ñu def parti politique yu bare ci réew mi bo leen C'est couleur di nga ci gis vert di nga ci rouge di nga ci gis Nous, ñun suñu logo c'est le bissap xana bissap dina xonk nak ak feuille bu verte bissap xana muy ñu benen bissap bu bu <laughs> bissap dina am lu dina am lu koy créer choisir ñu ni ñun le bisaab national bi ñepp xam moy suñu logo dañu doon reetaan sax nan réew mi daa tooy il faut que ñu koy defal bisaab muy nan pour nit ñi mën a mën a parce que ñepp toy ndax choono ndax ñak ndax dang-dang bu guddeeg bëcëk do am dara suñu logo c'est deux pétales de bisaab rouge avec une feuille verte entouré par un cercle bleu sur un fond blanc li moy avenir Sénégal bi ñu bëgg suñu logo depuis 2015 moom la ñu yor ça n'a